sëñ bi Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah, maa ngi lay fay euh, madame Elisabeth. Mm-hmm, président alliance des syndicats autonomes de la santé euh, di secrétaire général SUTSAS tey jii yéen ci And Gueusseum teewe woon ngeen ñetteeli conférence sociale lan ngeen ci jàngat ak lan ngeen jàpp ne mooy solof ndaje googule amoon le 10 décembre. waaw loolu dañ koy rafetlu parce que def naa moo fi moo fi njëkk a li ñuy wax conférence sociale mm-hmm. euh, bi ñu defoon fan yi passé mooy nekk ñetteel bi mm-hmm. bon bi nag euh, dañoo tànnoon waxtaane mbirum protection sociale mm-hmm. xam nga nag boo déggee protection sociale même sax mën nga ko yaatal sax wax socle de sociale mooy liggéeykat bi buy liggéey normalement bu feebaree dañ ko war a faj mm. bu amee accident du dañ ko war a dañ ko war a faj mm-hmm. ah, ensuite toppatoo ko mais waa kër bi aussi njaboot gi dañ ko war a liggéey mm-hmm. moom nag aussi bu fekkee dafa dem retraite tamit war am ci lu mu jàpp demee retraite mm-hmm. loolu nag muy liggéeykat bu nguur di embauché wala liggéeykat bu privé am wala ñi nga xam ne sax kenn embauché wu leen maanaam baykat bi wala sàmmkat bi wala keneen ñuy wax secteur informel hmm. ak jaay ak yu mel noonu ñoom tam war nañ am seen protection war nañu mën a seet benn pexe boo xamee ni dana am lu nga xam ne dañ ko génnee ci seen koom hmm. di ko teg ci benn béréb pour bu ñu àlla traité ñu mën ko ñu mën a fayeeku parce que dootu parce que nit ki bu màggetee dootu a liggéey te defe naa bu bu liggéeyatul war na am lu nga xam dafa war a sukkandiku parce que moo ko dencoon loolu mooy li ñu euh, de retraite mm-hmm. waaw nga fonctionnaire yi am leen benn njariñ mm-hmm. ba nga xamee ne ñi ëpp ci population bi maanaam téeméer bu nekk juróom-ñett fukki yi ah, tubaab maanaam wala liggéey bu nga xamee ne dañ leen di fay ko par mm-hmm. ba ñooñu tamit mën a am leen lu ñuy denc pour bu ñu wala lenn lu nga xam ni bu leen accident tabee wala feebar yenn feebar yi ñu mën a suturloo mën a aar aussi seen njaboot loolu mooy socle de protection sociale mm-hmm. donc aspect de de couverture médicale la ak li ñu naan protection sociale léegi nag ñu rafetlu ko ndaxte vraiment ministère euh, du travail organisé na ko te tamit yi am na waxtaan kawe kawe kawe mm-hmm. waxtaan nañu mbir mi ba am nañ daal ay recommandations yoo xam ne bu ñu daal dana am solo trop ñun ñu succès daal ci conférence boobu la. et justement tey boo doon évaluer ci xayma euh, li jëm ci wàllum santé ak action sociale ci at mi ndax am na yokkute. Euh, am na yokkute yu bare. Hmm. mais aussi am na yenn yoo xam ne aussi ci ñoo xaar gouvernement ak suñu ko tamit. yokkute bi mooy e, feebar bi maanaam pandémie bi e, desal na réew yëpp desal na suñu bos suñu bos ba tax na am ay manquement yoo xam ne jot nañ ko ci mm-hmm. manquement yi tamit ba nguur tamit daal di wuti junni milliards pour jéem a fexe li manqué woon mu ko motali mm-hmm. ba tax nag am na hôpital yu bare yu ñu tabax am na aussi équipement yu bare yu ñuy Mm-hmm. équipement yi nag moom ay scanner la ay équipement yoo xam ne appareil dialyse pour ñi nga xam ne vraiment ak oxygène aussi gouvernement def na si ay jéego yu bëri ci ay générateur yu ñuy installé ak yu mel noonu ak lal yu bëri mm-hmm. loolu moom ay jéego yu bëri nag maa fi ay la def na ko ci mm-hmm. wante nag soxla na ci protection liggéeykat yi te loolu euh, bis bu nekk danañ ko wax te wax ni liggéeykat yi ci seen wàllu bopp ñoom bu ñu yorul seen njaboot yorul bu ñu leen bu baax euh, xëy na dina am ay jafe-jafe ci paj bi ak seen i seen i njaboot. Mm-hmm. loolu wax nañ ci en son temps am na yu ci joyanti am na aussi yu defar. Mm-hmm. bon li ci des nag aussi mooy fan yii dégg ngeen ñoo ne ñu ngi ñu ngi laajte yoo xam ne gouvernement bi xaw ma am na ay ay ay ay hôpital yoo xam ne dafa am ñu ñu ñu ñu amoonal ay contrat. donc ñu faj ba pare ci affaire CT bi parce que dañoo soxloon ay yu bare ci ci cadre de traitement euh, épidémique yi mooy fi doon fajee ñi nga xam ne amoon na mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi laaj seen i seen i ndàmpaay ak ñu ngi laaj i seen i salaire mhm. loolu nag léegi nañu ministre de santé DRH bi daal wax ni euh, am na ñu ñu ngi lijjanti ñu fayeeku mhm. bon loolu moom ay ay manqué manqué la loolu warul woon am parce que vraiment ku nekk ci mbas mi war nañoo mën a lijjanti yi mu gën a gaawee parce que match boppam da ko xaarul kenn bon yooyu daal mën nañ ko xayma daal xam am na ay jéego mais am na aussi ay jéego yu des euh, pour que ñu pour que ñu am lañ mhm. sanitaire souveraineté sanitaire bi nag euh, il faut que mu nekk sur pharmaceutique maanaam ñu am si ay garab ah yu yomb ah a am ñu war a fexe ba ñu nekk daal ci mhm. vaccin yi euh, la ñuy wax euh, jëm ci mbas mi tey ji euh, bëri na luñ ci dégg wala ñaar wala ñetti yoon ñu dégg ne am na ay vaccin yu périmé mu mel ni campagne de vaccination bi na mu waree woon tëre am ameewul noonu tey lan nga jàpp ne mooy blocus bi nan lañ war a mën a gën a def ngir sénégalais yi adhéré ci projet campagne de vaccination googu waaw loolu moom lu ngeen naxarlu la parce que dafa xam nañ gis ñu benn bataaxal que ni benn dose rek euh, boo nga xam ne ni perte nañ ko rek loolu baaxul parce que dose boobu mënoon na fexe ba aar nit ki mu bañ feebar wala mu bañ a génn àddina mm-hmm. euh, na nag aussi euh, gouvernement bi en tout bi bi mu bi mu bi mu jafee dem na bu wuti deux cent mille ah bi mu am yeneen aussi bu ci ne yeneen aussi day ko mais nit seen wàllu bopp aussi ñoo sawarul doon ci vaccination bi parce que dafa am ay xabaar yu bëri yoo xam ne bokk nañ ci élément de blocage bi mooy li ñuy fake news mm-hmm. ay nit yoo xam ne dañuy wax ci ñàkk yi loo xam ne xamuñu ko ah, di ci def loo xam ne waru leen te ba léegi amul kenn ku ñu wax ni ñàkk rey na ko mm-hmm. au contraire li ñu doon wax mooy dafa am avantage bénéfice risque lu nga xamee ni boo ko defee eh, doo feebar wala boo feebaree feebar bi du garaaw ba lay rey moo a nga bañ ko def feebar bi wala dina sa waa kër wala wala sa ay am di jàmm yoo xam ne yaa ngi leen fréquenté mm-hmm. loolu mooy wax bi a ah, léegi nag ñun aussi ci ci bopp bañ ci tolloo tam néew nañ leen ni am na programme élargi de vaccination mm-hmm. programme boobu boo demee ci centre de santé poste de santé yëpp organisé wu nañ ko am na ay glacière am na a moto am na xam si ay oto am na ay relais yu dem ci kër yi poste de santé bu nekk xam nañu cible parce que santé bu nekk xam nañu koo xam ne bu ñàkkoo tey boo lay ñàkkuwaat defee ba mu ñàkkuwaat loolu mu ngi noonu dañu fexe loolu pour ñun sooxe na parce que campagne ci boppam la ñu wax comme ni ñu campagne électorale ku nekk di say casquette say fulaar ak say manifeste bu joxe. Mhm. loolu mooy campagne dañuy génne alal génne alal motiver nit ñi ku ci nekk dox fa nekk communauté bi daal di mobiliser ñu vacciner wante bu ñu commencé naan dañuy dem ay ay ay ay ay ay arène nationale ak dañuy dem ay obélisque da dajale fa ay nit ñoom ñu ñëw ñu waxu ji jóge Fuuta ji jóge Kajoor ku nekk ñàkku dem seen alors que ñàkk yi matul loolu ñun gënal ñu waaw même bu dee dañoo bëggoon yokk yokk yokk nombre bi ñu gën a lu ñu woon parce que ñi ko gën ñu gën a jege mën nañ xam ñaar ñoo fay ñàkk bu ñu fa ñàkkul ñu ñàkk leen wala bu ñu waree tàmbali ñu tàmbali leen loolu moo am solo si ñun. Mm-hmm. ah fi nekk ñooñu mën nañu ko liggéey boobu. ndax jàppoon ne tamit politique bi maanaam campagne électorale bi am na lu mu gàllankoor euh, ci lii di euh, vaccination bi ni mu waroon demee campagne bi. waaw ñun ñun pour ñun sax campagne bi eh, dafa war a nekk a nekk occasion pour mm-hmm. politiciens yi xam ne dañuy dañuy dañuy daagaan ñi mm-hmm. parce que ñi aussi boo leen di daagaan da ngay fekk boo leen boo bëggee ñuy wotal la aussi war nga leen jubal ci affaire développement mm-hmm. te ñàkk wérgu yaram ci développement la bokk war nañ ñoom ci seen seen manifestation ak ci seen euh, programme yi comme ni ñu leen ko waxee ci protection sociale boobule ñu fexe ba bàjjenu gox yooyu ak agence santé communautaire yooyu les relais yooyu nga feebar ñoo nekk vaccination yooyu ci lépp ñu leen protection sociale parce que mairie yi mën na mairie mën na def lu bari ak compte développement sanitaire yi CDS yi war nañ ci profiter pour que électeurs yi ñaax leen pour dem def ay campagne comme ñu journée de don de sang ñu def ay journée de vaccination loolu loolu yi war nañ ko mën a demander seen i électeurs yi wante nag parce que léegi ñoom li ñu mooy dajaloo nit ñi di gën a yokkante feebar bi te bañ a ñàkku yooyu sax gënul si ñoom mhm. moo benn leçon bu ñu leen di parce que tolluñu foofu waaye mën daal loolu buñ ko defee mooy moo doon gën daal ci population bi et non dinañ dajaloo ñuy amee risque feebar surtout variant bu mujj bi omicron bi ah xamuñu ci lu bari ci moom waaye nag comme que variant la rek Mm-hmm. boo xam ne day day moo gën a gaaw wàlle lépp lu gën a gaaw wàlle rek ci feebar bi dañu war a fexe ba loolu loolu du fi mën a loolu du a sax loolu du fi mën a nekk tey jii fan la seen plateforme revendicative yéen ñi waa And Gueusseum toll waaw ay la yowén ñu de euh, bi ñu dafay déposé suñu préavis de grève boobu la bon nañu ñaar fukki fan ak benn ci weer yi mais ba léegi ñu ngi ay waxtaan mm-hmm. waxtaan nag ñu ngi jur waaw parce que fu mu nekk nii technicien supérieur yi euh, fu mu nekk nii non seulement décret bi génn mais arrêté bi nekk ci parlé woon génn génn nañ ko ba def circulaire ba fu nekk nii ñëpp déposé nañu seen dossier mm-hmm. euh, pour que formation war a commencer normalement euh, am na benn let bu ma jot tey sax bu ñu woote benn le vingt trois décembre bi mm-hmm. def naa bu ñu paree ci loolu normalement ci weeru janvier formation war na a commencer mm-hmm. te loolu nekkoon na xeex bu rëy bu nga xam ne nekkoon nañ ci bon ministère de la santé aussi euh, euh, góorgóorlu na ba fu mu nekk nii énormément d'itinéraires yi mooy naan ñooñu di vacciner di ñàkk les infections de poste de la population ak des stratégies avancées mhm. mu nekk trente mille francs parce que depuis mille neuf cent quatre vingt six quinze mille francs la woon loolu mu nekk jéego le président de la République aussi suñu def ni euh, génnoon na décret jox ñu bu nekkoon pour dàggal pour ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci programme bi bon am na yeneen aussi yu des yeneen réunion yu des ak ministère du logement ak de la fonction publique ñuy xaar réunion yooyu def nañu fii ak fii ak weer wi di avant weer wi boobu yaakaar nañu dañoo war a mottali daal protocole d' accord yi loolu moom yàlla def nañu ci avancé ñu nemmeeku ne jamono ji yëngu-yëngu yi bëri na lool ci secteur yëpp amaane na euh, lan moo ko waral yow mi doon responsable syndical ndax weer bu doon mujjantal euh, at bi euh, moo ko waral comme ni nga ko waxee sànq wala li mu doon campagne électorale maanaam pré campagne pré yooyu bu ci nag nekk na occasion hmm. parce que non seulement at maa ngi jeex tey euh, ñu ngi woote ñu ngi woote beneen budget pour deux mille vingt deux mm-hmm. euh, nit ñi war nañu fexe ba bu ñu woote budget bi bi nga xam ne d'accord na ci gouvernement bi bàyyi ci xel pour que mën ko appliquer loolu nekk na loo xam opportunité la comme ni ñu koy mm. élection yi tamit nekk na loo xam ne aussi pour yëglu bon pour won candidat yi tamit ne eh, te war ci bàyyi xel mm-hmm. pour que ñu lijjanti ah li ci des nag mooy comme que boo diggee diggewoo diggewul boo dee diggee bu fin d'année jot te te defuloo li ngay def mhm. nga jëm ci élection jaadu na aussi que ñooñu daal di fàttali ñi nga digge woon ah, li ci am solo mooy éducation nationale ak yooyu ak enseignement supérieur wala ñeneen ñi bu mhm. ñuy revendiquer en tout cas pour le moyen secondaire ak ñeneen ñi loolu tamit ñu nag sant ñoo ko bokk de rémunération monsieur le président de la bi bu mu bindoo baaxul ni mu ko tëralee dañ ko jooyanti mu def étude bopp rek résultat moom mu appliqué wu ko loolu moom li jàngalekat yi jooy ñun tam moom la jooy mhm. mais ku ci nekk dafa am bu nga xamee ne ci ngay mën a ci mbir yu mel noonu mhm. transporteurs yi tamit ay la yoon li ñu wax la waxtaan dañu fexe de waxtaan bo du jàmm te gouvernement engagement bu mu fi jël mu appliqué ko parce que yëngu-yëngu Euh, bonul en fait parce que ñun pour ñun conflit dafa baax sax parce que dafa indi progrès mais li am solo mooy ñu mën a gérer conflit bi mhm. ba li taxoon yi ñu réglé ko ba loolu dootu amaat beneen yoon ñu jublu ci leneen loolu moo am solo mais conflit am ñu koy bàyyi nit ñi di ci loolu bu ñu d'accord loolu ba pare duñ ko bëral ëllëg si ñooñu dugaat encore pour les mêmes raisons yooyu loolu moo baaxul ci nguur baaxul ci liggéeykat baaxul ci ci population bi. Mballo ñu lay jaajëfal a